asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokk jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ngi leen di nuyu nuyu bu lislaam ñoo ngi leen di siyaare siyaare bu lislaam ñoo ngi leen di balaax ñoo ngi leen di balaax ñoo ngi leen di siyaare kilifa yi nga xam ne moo fi kenn ku nekk ci yéen ñu ko siyaare mbooloon tereex yi fi daje eh, talib si njër doo nga nekku fi taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ngi fi taalibe Maam Alaaji Maalik yëpp ngi fi taalibe yëpp yëpp jullit yëpp ngi fi kon du jar may lim eh, part kii tarex yi waaye gannaaw tarex yëpp ngi fi tarex yëpp laa koy laa koy siyaare di leen ñaanal yàlla defal leen tawféex ci dajal gi ñu fi dajee li ñu fi jàng ci xasaayit li mu ak alxuraan li muy néew ko bari lépp maanaam yàlla na ci defal yàlla na ci yàlla defal ko weesu njort kenn jullit yëpp Eh, dafa jàkk dañuy ñekkati kàddu sant mbooloo mi gannaaw ñu leen fi woon bañ naje fi ñekkati mbooloo mi du mën a ñàkk moo tax ñekkati kàddu santaan di leen sant ñu war a waxee dana am ko taxaw fii ma ko bu ko am suñu cant ak bopp ko fi ngi leen sant ñu def leen tawfeex noo ngi leen ñaanal lépp loo xam ne def nañ ko fi nga am ci yàlla def seen jortu ki nga xam ne moom la ñaanal tam nga xam ne doog na ko desal tey jii nga xam ne maanaam eh, te mi ngi juróom ñeent fukki atam bi muy bi muy génn àdduna xëy na xalifa sëñ Daaru gi yàggu ci waaye nag am na ci jotaay kim kim kim tawam tawam tawam tawam kim topp ndax kim kim topp ci moom moo làq mu mu wutoon ko am na fu ñetti at ak ñetti weer ak fukk fan ak juróom-benn kon maanaam kon maanaam li ko kooku màggee woon xëy na ci saayir ci ci at xëy na kon toog na ko gannaawam ci ci ci ci ci ci xalifa gi kon moom itam yal na ko yàlla eh, defal tawfeex fa mu jëm yàlla yàlla taas na ci barkeem tax ci barke bépp jullit ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi ñaanal ñëpp tawfeex bu sëñ bi xaadim àggale jàng xatm mi ñu ñaanal ñëpp ñu dem kenn ku nekk dellu ci yitte yi ba beneen yoon jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yëpp mbokki taalibi yëpp seen mbokkum taalibi moo leen di di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp di wax na bu ngeen gisee ma jël baat bi di fi wax eh, day ma caa am ndigal waaye du sama du sama lu ma man waaye nag danañ ko def ngir lim lalu ci ndigal di wax na ñu ngi sant sunu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moo bind jaam ñëpp di ci teg Seexul Xaadim mi nga xam ne moo sunu yaakaar adduna ak alaxira di borom bu baax ci li nga xam ne noonu la adduna doxee ba tax ñu daje fii tey muy jëmm yi nga xam ne simin bi ñu génn sunu borom jëfandikoo na coobaram ci ñoom te jombut kenn ku ci mel na sëñ Mbàkke moom mi nga xam ne mooy xale bu sëriñ Daaru Asan yal na ko yàlla teeral te teral ko te taas ñu barkeem ak ku ñuy wax Serigne Touba Sow mi nga xam ne eh, yaakaar naa ku nekk konal yaana wala ci Wénéto war nga koo dégg wala nga xam ko ak Modou Mbar Thiam mi nga xam ne moo nekkoon di ko toppatoo ba benn fan tee ko eggale mu leen melaan ñu duggee ñu tàgg ko bay juróom ci moo moment boobu nga xam ne ginnaaw bi bërki bi ci guddi lañ fa jógee man ak sama benn mbokk taalibe ñu yóbbu leen melaan moom njabootu Touba Sow ba fa lañ duggee ji dem nañ ci jàmm ñu ngi leen di ñëpp di leen gërëm Eh, di wax na it ci ab yëg la boo xamante ne bi dañ ko bëgg a jàllale bala ñoo jottale kaddu yi mu sëriñ Xaadim Njaay dafa wax ne la bi di ñëw incha allah bi Pointe de Piave lañ bëgg a defee eh, bi nga xam ne moom moo jëm ci kër sëñ Tuubaa gi on est di fonte astaghfirullah on est on est di fonte bi ci toppaat it sëriñ Mouhamadane mi nga xam ne eh, doom la ci Cheikh Mouhamadul Basir moom borom daaru ñu ko wax sëñ Basiru Anta Ñang tam ñëwoon fii ci ginnaaw fan yi ci ginnaaw ajjuma ak gaawu doon taxaw mbirum taalibeem boobu nee na mi ngi sant taalibe Serigne Touba yëpp di sant julit yëpp nee na it xolam sedd na ci waa télévision ni ñu doxee ci jàppale seen bokkum julit wala seen bokkum taalibe nee na sant na ci bu baax yàlla na yàlla fay ngeen ji fay bi ci toppaat it am na ku ñu alaaji Silla yaakaar naa ko jege woon Touba Sow la moom tam xam naa jëmam darul mën a acte fii waaye mi ngi sonnee kàddu yi sant ak ngërëm ndax nee na lépp loo xamante ne bi mbokkum Touba teewoon dana ko def waa télévision def nañ na leen yàlla fay la wax ngeen ji fay ba ci toppaatit muy baat yu néew yoo xamante ne bi saa bopp laa koy tàmbalee waaye nag jullit bu ci gis sa bopp man nga ko jël jariñoo ko muy àdduna sunu borom dañu fi indi ngir ñu jàmm ko te diir bu gàtt la ñu fi bay bàyyi gam ñu fi bàyyi nag bàyyi rek boyal ñu lu la neex def lu la neex wax ndax loolu ñu wax maanaam génn àdduna moom la njëkk bind ci avant muy bind dund bim ñu bindee daa am lu ñu digal am lu ñu tere lim ñu digal mooy nañu koy jaamu te xam na xam mooy kan maanaam daf li ñuy wax tawhid ci moom ak tawakkalu wakkilu ci moom te xam moom moo bindi lépp bi ci toppaatin mooy tere yi mooy lan tere yi mooy lépp loo xamante ne bi neexul yàlla suñu borom tabaaraka wa na kenn mën na caa dégg ndax tere yooyu boo ko boo ko moytoo rek ku yomba jariñ ngay doon nga xam ne boo xoolee jamono ji nii muy doxee ci at yi ñu génn dem gi gaaw na lool tey day bette ndax xam nga nekk ci da ngay nekk ci malaat di ko laddanti ñu ne diw mooy toppatoo diw nis kii suñ kooku la muy la muy la muy xalaat ca kooka mën naa ñëw ci kawam kooku na mel ak suñu borom la tamit nga am ñu ngi ciy teg suñu bët ndax muudu mbaar ci amee doon toppatoo euh, soxna sëñ Tuubaa Sow mii ku ne ko woon doo leen yóbbu Milan du ko gëm xam nga te mu ne su alarba ci ngoon la la la la waroon a dem sol ci otom essence ba na ma yow mën nañ laa jéggal yow alaaji dinaa mën a ànd ak lan yóbbu leen ci otom jeetaal avant jant bi sa mboo ma ne ma sama yaa daa wàccu liggéey léegi daa rumul daal ne ma dam daay wut billet su ma amee damay dem kon munoo ñàkk a dem xoolal ma boobu boobu boobu boobu jege jege te jombut kenn nag. léegi nag am benn mag mu wax ne magum taalib mu wax ne àdduna de ku ne dinaa la wax yaar yoo xamante ne bi dana dimbal ab jaam ci bàmmeel ñu ne ko lan la mu ne mbindee fi yàlla yi jaami yàlla nañ xam si njariñ boo fi jógee dana la jariñ ci biir ci biir bàmmeel ñu ne ko ak ban mu ne njabootu seexul xadim gi nañ xam sa njariñ bu mën a njabootu Seexul Xadim nag ñëpp a ngi ci biir ba ci ñun ñi sax ci njabootu Seexul Xadim la ñuy doon donte ay taalibe nañ bu ko defee nag euh, maa ngi jégalu bu baax ci ni may waxee waaye nag man dama koy misaal ci saa bopp rek ndax euh, jaamu yàlla baax na lépp baax waaye nag ndimbalul suñu borom moo mat a ñaan te yàlla kum dimbaliwu doo mucc ndax lañ koy defal xamuñu ba xam yàlla nangu na ko mu déet kenn ko xam sa bopp dara amut kon nag ñun ñëpp nañ jàpp na ay jullit lañ te ab dafa war a laabire moroomam jullitam jullitam bu ko defee eh, loolu nga xam ne mooy faatu nga xam ne day ñëw ci nun te dugoo boo ànd dem ca armée la ban denc sa mbokkum ba wàññi ko ba jëm ci kër yi kon joxañ baaraam ne la yow da nga naan du man te mi ngi ci kenn du jógewaat ca armée la ñëw ci dëkk bi moom ci dëkk bi donc nga mën a jógewaat dem ca armée la te kenn xamul ku muy doom te kun ko jiñ nga ne du man te na ca loolu luy am la bu defee nag maa ngi jégal tawfeex ak tey taysir ba mën koy def mu fekk den ci siraatal mustaqima yoon wi nga xamante ne bi kum ci fekk dañuy wax ne diw ma nga àjjana àjjana nangam àjjana bis la boo xamante ne daa taxawugul ndax bis penc amagut feeg bis penc amagut nag bunte àjjana du ubbiku waaye nag ku suñ borom defal ak taxe mu leer la ñëw taxe nga xëy la àjjana yi ñooy dotti ko jëla fekk fi nga ne ndax bu la dugalee ci bàmmeel nga nekk nit ku taxe lépp lu la sun borom amel ci aw yiw da fekk fi nga ne ndax imaginel yow bameel ni xate nga dugg ci nga nekk nit ku texe ñu naan la bis bañ ci taxawul gët waaye say taraanga moom day tàmbali ñu daal lay yaatal yaatal bàmmeel ba mel na saal bii xam nga man suma faatoo ñu teg mu ci digg saal bi espace bii ma am doy na ma xéwal suñu borom di tott ko ca àjjana yi di fekk fi ma ne ba keroog bis bañ taxaw bu saa taxawee nag ban atta sama jëf na ñu bu fekk àjj texe la sa dama koy misaal sa bu fekk àjj texe la bu fekkente ne safaan ba yéen nag kasaali ko ne ko noonu fi ngay nekk fi la dañu may naj lu mu gën a xat moom gën a leen ndax maa ko liggéey loolu rek laa ne woon naa ko dénkaane te saa bopp laa koy misaal kon maa ngi lu tey tuub di leen wax ne lii nag du sama du sama du lu ma man ndigal ma ma dab mi di ko def waaye nag maa ngi ñaan képp ku fi teew yàlla na la sunu borom defal tànk yi nga jógee sa kër ak fa mën a bàyyi ko mu yokku ci sa fan yokku ci sa wér yokku ci sa xéewal ba bu ëllëg a soxla naqari àdduna ak alaaxira asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh alhamdulillaahi rabbil aalamiin arrahmaani rahiim maaliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdinas siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim xayril maxduubi alayhim wala daalliin bismillaahi rahmaani rahiim alif laam miim zaalikal kitaabu laa rayba fiihi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 wajulana ujjatan yawma diin allahumma anfa'na bima sarrafta fihi min al-ayat wa sakkirna bima sarrafta fihi min al-mursalat wa kaffir bi tilawatihi anna sayyi'at innaka mujibu da'awat allahumma taqabbal minna khatma al-qur'an wa tajawazna ma kana fi tilawatihi min sahwin aw nisyan aw tahrifin aw taqdim aw siyatin aw nuqsan aw tahmin ma anzalta aw tahjil inda tilawatihi aw kasin aw seexin lisaan aw waqfin bi xëyri waqfin aw idxaamin bi xëyri mu aw bayaan faktum mina ala tamaam wal kamaal wa masi min kullil alhaan wa soqana farila man xaafu hadiyan aqahu ma al axdaab wal xalab wa lisaan aw lana bil xëyri wa sahaadati wal bishaarati wal amaan wala taqdim lana bisiri wa dalarir wa tuxyaan wa xam ne aqabna ولا تقم لنا بالسر والدلال والتقيان وإنا قبل المنايا منا من الخفلة والكسلان وإنا من صاحب الخبر من سعال المنكر والنكير من أكل الديدان وويد وجوهنا يوم البحث واتق رقابنا من النيران ومن كتابنا وسير إسامنا وسقل ميساننا بالإسانات وسبل أقدام وسبل أقدامنا إلى سرات وسكنا وسر الجنان warzuqnaa jiwaara sayyidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam wa akrimnaa bi liqaa'ika yaa dayaan allahumma ijhal xuraan asim rabi xuluubina wajala axsaanina wa saaba xumuumina wa xaa'ina wa saa'iqina ilal jannati nahim allahumma ajal insana fil waxsati wa musaa'ibana fil waxdati wa musbaana fi sulumati wa dalilna fil xayrati wa munqisana fil fixnati simna bihi min seyqi al ahwaay wakil hadaay ya arhamar ya rahmanu ya rahim allahumma timmi sahaadati ajarana wa akhis bisyaari amalana waqrin bil aafi xuduwana wa asarana waxjal ila rahmatika musharana wa maalana afsib sijaal ahfaak ala sunubina wa mun ahlina sitri huyubina اللهم اجعل تقواك سيد سادنا وقربك دخرنا واعتقادنا وامن من الجوه والخوف بلادنا وسائر البلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم الاخساء ما قرأناه ونور ما تلوناه لروي سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح أبائه ومهاته وأصحابه وزوجاته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواحه اللهم بلغ سوا ما غرنا ونور ما طلعنا لروي سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح أبائه وأمهاته وأزواجه وسرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواحهم اللهم بلغ سوا ما غرنا ونور ما طلعنا لروي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح أبائه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 إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم غير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الخبير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا اصلح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير واحفظ على سيدنا محمد خالد دنيانا عمرنا اهلنا بلدنا وهب لنا رشدا افتح لنا كل باب كل فاتحه رساله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي لنا وآتنا حبي مرامي يا وهاب نفسي وغيبي وميتي توفيق مكتب شيخ مصطفى الكريم ربي يا أحمد على محمد